bokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom dolli koo taxaw dolli ko aar ba li mu yéenee liggéeyal suñ Tuubaa suñ borom def ci lu kawe njortam barke Cheikhul Xadim di nuyu mboolem talibe yi suñ Tuubaa yëpp di leen ñaanal yërmande suñ borom ak njëggalam barke suñ Tuubaa di yëkkati sunu kàddu rek muy kàddu fàttalante kàddu laayante biir euh, kàddu soññante te lépp rek jëm ci jàmbari lislaam ji nga xamante ne ni moom la nu sunu borom wërsëgale ci yërmandeem boole nu ak moom nu fàttalante rek ay bind yu néew ci moom tey ñaan yàlla ñu jariñoo ko te wax ji rekk jëm ci bisam bu rëy bii nga xamante ne ni moom la santaane ñu santale ko ci boroomam ngir ni nee na li mu bëgg a sant boroomam xeeb na ci làmmiñu boppam li ko yàlla defal war koo sant xeeb na ci jëmmam waaye mu bëgg képp koo xamante ni mbiram sa mbira nga santale ko yàlla ci bis bi bis bi nag daa bari lu mu lu mu ëmb ndax bis la boo xamante ni eh, laata may ñëw ay coono rek a ko nar moo ko lal nabatukum ala kaddin bada lii xablaan ara ridan mu abada mu maa ngi leen di xamal ni ngërëmal yàlla lii na fi man laata ma ko am xaw na maa dee euh, kon mat nay fàttaliku bu baax a baax ci ay jaar-jaaram mat nay fàttaliku bu baax a baax itam ci coono yi nga xamante ne ni jànkoonte na ak moom te lépp jaamu yàlla rekk waral ko nga xam ni ngay wax ni xusuuriya xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi lazi anhu l madihu xasiru fay nañ ay taali jàngam tasaare nañ ay këram tàggale nañ kook njabootam diir bu yàgg te dara waralu ko rek lu dul joxoñ bob yi mu joxoñ rek kookii yàlla tànn def ko mu di xejj li matxil la si anhul madihu xasiru kooku yi nga xamante ne ni lépp lu ko nit wax ci lu baax lu ko ëpp nga fa lépp lu waay foog ci moom ci aw yiw lu ko ëpp nga fa te mu taxawoon tem ci liggéeyal ko ba tax mu sumb liggéey bu rëy bi liggéey bi nag bindu yu bare bari daane ci biir yu mat a bàyyi xel ñu fàttali ndax euh, bi nga xamante ni ni suñ borom dogal na mu sóobu ci liggéey bi ginnaaw li atikaaf bi nga xamante ni ni moom la defoon ci jàkkay daaru xuddoos ji ci kooruk bay sësin rasulullahi sallallahu alayhi feeñu ko ca jàkka ja ak ahlu badrin ci feeñu win woo xamante ni ni musu koo feeñoo noonu ndax ayaanan la wax bayna xijaabin raqiq nee na sama bët du nelaw du gént waaye nee lu mel ni rido moo dox seen duggante mun mu ko jox lox mu ànd ak ahlu badrin ànd ak sahabatul kiram sëriñ bi yitteem moo doon bokk ci mbooloo moom yi muy ñooñu ànd ak moom te dootuñu tàggook moom te ñooñu boroom xam-xam yépp juboo nañ ci ni fas yañ doon war pour it may génn ci gimiñu fas ya moo gën a foor jëfi wàllu yu kamaal kon ñooñu nit ñooy ñi gën a tedd ci lislaam ñoom la suñ borom waxoon ni leen toppatuma leen dara mënatu leen a def lu leen yóbbu sawar nga ñëw seen gannaaw am yitte yu bëgg ca bokk loolu yitte ju kawe la kon la ko suñ borom waxoon ca mbakke Kajoor gannaaw bu suñ Mor Anta Sali nelawee foofa la teg tànkam muy rabbi asaabaka bil himma yaral sa njaboot gi ci yitte ju kawe may wax nag ni yitte ju kawe moom loolu mun munta romb loolu mbooloo moo xam ne bañ fa rombee ak léegi mat na junni at ak ñetti téeméer ak fukk nga laxasaayu ni ñoom nga bëgg a dabi loolu yitte ju kawe mënu koo mënu ko romb loolu war nañ koo romb donn ci sëriñ bi roy ko ci moom mooy moom bi mu fi jaaree yàggagut bi mu wanee gannaaw ak léegi ma tëggut téeméeri at sunu yitte war naa àgg ci saa yuñ ko bëggee gis gis ko buñ ko gisul ci sunu bëti xol yi itam gis ko ci sunu bëti xol loolu lii sëñ Moussa Ka di wax ni waa jile Moussa bul fàtte waa jafa Tuubaa moo la te faatu moo la tee yalwaani ngal la Moussa bul fàtte Seex Bàmba ci duniyaa bu la fàddoon ak saxal ca lam santaane naka sab xol ni jàkk ndeem raw na say bët mi ngi lay gis te bawul ak seytaane nga xam ni war na noo mën a sax ci di ko teewlu jëmmam ba mu mel ni noo ngi koy gis loolu li mu doon wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi sarmadan wa in kuntu an ardil madinati sana yi mu ni lu ma sori sori madinatu munawwara it maa ngi mel ni ku toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saaba foofee war nañ faa jéem àgg ak jëmmam ndax dana nu may lu baree bare mooy dana gaawal sunub dox dana nu defal taskiyatu nafs dana nu tërbiye itam ndax ku toog ak moom danga am melokaan ndax wàll yu day wàlle ni xal di soppee ndox noonu la wàll di soppee eh, ku taqook moom tang ci jànge itam ci li atikaafam boob yi muy fitam wu rëy yi ko suñ borom jox ndax bi nga xamante ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu na ko te mu wax moom ak bëggam yonent bi ci mbaaxam wax ko ni ko sa ñeent fukki at des na ñetti weer waaye mën nañ laa jox garatub xut te moom yitteem du loolu la mu bëgg ëpp na loolu ñu tegal ko yoon wa koy tax mu man ca àgg te yoon wa lépp di yoonu coona mu nangu ko te ko waaw mu ni jomam àttan na ko nu war koo mën a roy ci am jom diine jaral nu bépp coona war noo jaral suñ bakkan ngir moom loola tax it bañ waree ca weeru koor wa rek mu gàddaay dem Mbàkke Bari ca Jolof ngir ni li mu bëgg ci jaxasoog nasaraan bi la koy mën a amee te léeg feeg mi ngi tuubaa lool du mën a am loolu li ci tam da ci jànge aw fitam wu rëy ndax koo xamante ni ni dëkk boo nekk dañ ne la dara lu dul noona du la fa fekk li nga fi ñaan suñu borom lépp may na la ko ci kaaraange teraanga nga bàyyi ko fa dem sañ cib dëkk boo xamante ni da ngay xaar ay nattu loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax su su fekkente ni agguñu ci buux suñ bopp ci ay nattu it ñu war a am jom ju toll ni bu suñ boroom nattu ñu muñ ko loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni itam ni ba yi mu demee baar yi ci Jolof ay weer yu néew la fa def nijaayam sëñ bu soobee wàcc ab liggéey ci fukki fan ak juróom-ñaar ci tabaski mu dem jaale ji ko ba mu dellusee weeru safar ja la ko suñ borom tëggee ak noonu jamonoom mu dem diirub juróom-ñetti at yu manqué tuuti yoo xamante ni ni lu dul génn roo daj na ko kon daj na lu metti lool waaye coonam yooyu yëpp mu doon daj dara waralu ko woon rek lu dul i'laa aw kalimati lahil ulya yëkkati kàddug sunu borom gi loolu dong moo doon yitteem bëggoon ñim jamonoonteel ak lu des ci jamono doon ay jullit àqan doon ay muumin doon i muslim di muhsin loola rekk la bëggoon ci nit ñi loola rekk taxoon mu engagé liggéey bu rëy boobu yi bëggoon itam ñoo ñii mu jamonoon teel te gëmuñu yàlla ñu xam ni laa ilaha illa allah ñu xam bu wér itam ni muhammadun rasulillah lool yi rekk mooy li nga xamante ni ni moo ko ñor liggéey boobu nag ci tuumuranke rek la ko doon liggéey ca bitti foo xamante ni nii kenn nekku fa moom rek fa nekk nga xam ne xeex bi mu doon jihaat moom rek bàyyub kenn desu ci maam yi kenn desu ci mu mel ni li ma doon wax sànq rek mooy ni ko yàlla melal nga xam ne amut koo koy tëkkaleel te ña ko jiitu ak ñi ñëw gannaawam xust xayaatan la turaa li xayri mujisatan baanat li usni xayri kon sunu yittee moo doon jëm ko roy mooy tax nu jariñoo ko ndax lu mu baax baax baax baax baax te jéemuñu ko roy boo ëllëgee mën na noo bañ a bokk ak moom fu mu nekk ndax moom ci boppam daanu wax ni àdduna ak àllaaxira dañoo wuute mu ni àdduna jii fi ne koo fi soxlaa gis te yàgg ci te sonn ca gis ga balaa yàgg danga ko teg bët waaye ëllëg ñu bokk lu ñuy def rekk fay gise mu waxoon nag ni moom dëkkuwaayam nga xam ne deetu fi toxoo ba mukk ba keroog muy dem na mooy ndigali suñ borom yi mooy dëkkuwaay mooy maskanul xaddim ni képp ku bëgg a dëkk ak man dëkkuwaay boo xam ne deetuñu tàggoo ba àjjana na nga dëkk ci santaane yi suñ borom yi kon mooy xam ne waruñu koo yéem dañ ko war a roy te li ñuy royloo ci moom ñëpp mën nañ ko li ñuy royloo ci sëñ bi ñëpp mën nañ ko li ñu jàpp ni kenn mënu ko loolu kenn royloowunu ko ndax ay ay may la yoo xamante ni moom moo ko jago li ñu royloo ci moom mooy li mu doon ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy message bi ngi taxoon suñ borom yónni yonent bi te mooy diiney lislaam loolu moom suñ boroom santaaniwu ci lus mënut te loolu lañ ñu digal ñu roy ko ci moom moom lañ ñu digal nu roy ko ndax mooy jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi la nu suñ boroom joxoñ ni na ngeen ko roy laxat kaana lakum fi rasulillahi uswa yonent boobu yi it la nu suñ boroom wax ni bu ngeen bëggee mel ni ma neex topp leen ko Sëñ Tuubaa kooku yi la doon topp loolee mu doon na ci yonent bi nag loolu lan loolu lan war a roy waaye yi ñuy nettali moom loolu suñu yoon nekku ci roy loowuñ nu ko ak ñàkk nelawam kenn wunu ko ak ñàkk soxlam xaalis loolu kenn roylawunu ko ak jullim ci géej gi kenn roylawunu ko yu nga xamante ne ni yu kiimaane la ay xar baax la waaye li nu royloo ci moom mooy jëfi doomu aadama ji nite gi roy gi muy jéem a roy sallallahu alayhi wa loolu mooy mooy li nu war roy ci moom li nu war a moytu mooy wóote ak moom moom ci jëf ak wax ndax jëfut lu génn biir lislaam ci diine yi lislaam dong dong dong la nekk moo tax yoon wi lislaam kepp la lu dul lislaam bokk ci lanuñ loo seen mu jóoyook àndaari sunna ka koy def la concerné waaye du yoon wi du xar baax du ak may sunna moom képp ku jooy ak moom la nga yor du xar baax du ak may seytaane rekk la ndax xeej ji boobu moom képp ku jooy ak moom yàlla génn na ci yow sëñ Tuubaa moom waxalewuma ko nahaaniya ni amal muhaymini anil mayli am maxtira wala xaq aqman suñ borom moo ko tere jàng jëm ci lu du dëgg kon lu du dëgg newu ca nekkuluwu ca biñ ko gisee ba biñ ko noppee gisit fi mu teg tàggam leer na te mag fu mu nekkut ay waxama ko fa nekkal te mbind maa ngi fi raafagut réeragut tasaaroowut jafewut am mun am kon ku bëgg a topp sëñ bi topp gu wér sukkandikul ci lim bind yooyu rek mooy bind yi nga xamante ne ni moom lañ war a jànge ci ak jeex ci talu dundam ngir mën a dimbali suñu bopp te moom toujours li may wax rek mooy képp ku ko roy gën say morom seytaane nag danoo wax loo xam ne du dëgg mooy danoo wax ne Sëñ Tuubaa kenn mënu koo roy baat bi boo koy nuyu déglu day niru dëgg waaye du dëgg ndax li ñuy royloo ci moom mooy diine lislaam lañ ñuy royloo ci moom julli woor natt asaka aj màkk di tudd baati seer yi te muy dëgg dimbali koo tane maandu ci lu sa yoon nekkut moytandiku tere lislaam yi loolu ku nekk ci ñun man na ko loolu lañ war a bàyyi xel loolu nag banees na ko waaye rëjax rëjax ji yi nga xamante ni ni moo xew ci jaxasoo ak góor ak jigéen topp seen bakkan lu leen neena wax des ko askanale ci moom loolu moom dañoo àggut fañ koy lijjantee waaye buñ fa àggee dañ xam ne jotewuñ ak moom dara ndax daana wax ni képp koo xam ne des na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow duma ko jaral aksi ndax soo melokaan ne doo jéggi siraat mukk te layowuñ ko mag moo tax mu mat a bàyyi xel bu baax a baax moo tax ci tukkeem bu rëy bii mu tukki woon ak dundam gu sell gii nga xamante ne ni moom la doon dund ay bind ci nekk yu bare bari yoo xam dañ ko war a nafar te fas ko yéene jafe ndax loolu moo nuy amal njariñ ndax kat daana wax ni sama jaamu yàlla gu rëy gi ngeen wax saa bopp tax te doyuma te bokk yi noonu ñëpp war na noo xam ne ba bàkkaar du wàlle te bàmmeel de su ko bokk nun ñëpp buñ faatandoo ñu gas menn pax dugal nu ca it kenn ku ne war sa morom bi taxul bokk bàmmeel te man amila saalihan fali nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama di li nafsihi kon mat naa bàyyi xel ginnaaw lu waaye def sa bopp lool na wax ni dara dara kenn deful kenn dara kenn defalu fi kenn dara lu waay def sa bopp kon sëriñ bi layoon ak ñun ndax bind na bàyyi fi wax na ñu dégg jëf nañu gis yàgg diwu fi siiwa diwul te nee na nañ def santaane yàlla yi muy seen sëriñ te bañ a def aw sant muy seen sëriñ lii daal mooy kàddu yi nga xamante ni bëggoon naa ko yëkkate di ci laayante biir ak bokki talibe yi ñu ñaan suñu borom defal nu tawféex ak yërmande wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.